Eh, mbas mi toogloo na ma ay fan yoo xam ne liggéeyu ma ndax c'était un vendredi ma wàcc am ay fièvre fatiguement si ñi nga xamante ne mbas mi yëpp da koy joxe ma toog jëluma garab jëluma dara ba samedi bi si laa jël benn lundi ma woote hôpital wax ko suñu médecin chef bi mu ne ma mun nga toog ndax si ñi nga wax fii yëpp loolu la corona di joxe quoi li tax ma vacciné wu mooy man ci corps médical laa nekk te chaque jour damay recevoir ay malade loolu moo tax ma vacciné wu pour aar sama bopp ndax tey bu ñu nee am na feebar bu fi nekk muy mbas mi te euh, vaccination moo la war a aar pour man da ko war a def. waaw vaccin yi moom bi ma koy soog a dégg xawoon naa ci am tiit daal mais bi ma gisee sensibilisation yi. sama xel ci la ci la gëna a dal té bi défé vaccin bi ba légui awma ci si problème dal limay may digal askan bi moy ñu respecté mesure barrière yi tak seeni masque utiliser gel dem vacciné wu ji ndax vaccin bi kat moo mëna ar ar aar suñuy mbokk ar suñuy wajur ar suñuy dëkkandoo.